c'est le maire de gis ni final bi yow lañ ko il tey nga également la population de Mbolo ni la teeroo ban sentiment nga ci am. waaw xam nga final Mbolo ECHO mënul nekk final bu ndaw ndax boo Mbolo da ngay toute la commune de Wachenan. waaye boo waxee aussi da toute la commune de Golfe Sud. et on sait que c'est les deux plus grandes communes du département de Guédiawaye. Donc, c'est un choc sportif mais c'est un choc populaire qui promet d'être euh, très beau et qui promet un bel spectacle, mais qui promet surtout une belle mobilisation. Donc nous avons rek match bi am comme nous avons pour que ce soit la victoire de Nous avons 54 jeux de maillot et 54 ballons Nous koy octroyé les 54 de de l'initiative waaw euh, notre mission en tant que maire de ville de Guédiawaye d'être à côté de la jeunesse et de les accompagner tout ce qu'on mën parfois sax lu mënul j'ai euh, essayé chaque année quand on démarrer di lañ des jox subvention bu ndaw bu leen mairie même à titre individuel ASC yi nga xam dañu de sori man en tant que maire dama leen appuyer personnellement sunu engagement mooy benn ASC bu mu amati fii ci ay problème yu ndaw yu mel ni ay problème mu maillot ay problème mu ballon wala ay problème mu démission e parce que loolu mooy waral kenn du am stress mën a engage championnat bi ci jàmm ak salaam donc loolu mooy sunu engagement d'être toujours à vos côtés incha allahu rabbi jërëjëf kii toog suma wet tudd As Diop Mang suis 17 ans Je suis âge majorité Nous avons créé ASC à Fatick bu tudd ASC Pastef je me rappelle bi nous avons dossier bi ba nous dem déposer à l'époque c'était OCCAV pelgue yow xam nga affaire yi gars yi dañ ko rejeté parce que parmi les membres fondateurs y a des mineurs nous <laughs> avons di changé waat kayit di déposé waat ko bàyyi sunu mag ñi ñu nekk ci kanam pour vous dire que man produit nawetaan la kon su ma ñëwee dégg pay wax ak euh, njaay li ñu wax dafay nekk loo xam ne dama koy mën a dégg parce que lu may ressentir la dafa bokk ci suma personnalité deuxième élément bi mooy ah non man mosuma ko latéral droit laa doon ki waaye waaye mosuma ci ay quoi benn yoon daal la mosu football UAC mais sinon man suma spécialité ci nawetaan secrétaire administratif la suma ASC suma ASC moom kenn du ko daaneel ci tapis vert moom loolu moom mënul mënul nekk waaw ak président CQRP loolu daal mooy suma spécialité kayit yi ak parfois tuuti xoñoom quoi Euh, fii nag je suis à l'aise parce que su ma ñëwee taxaw fii damay seen Ogo Diop d'ailleurs seen wax yi looloo ci manqué parce que nag man bëgg naa kuy revendiquer trop wala di demander def lii def lii te loolooy suñu warugal waaye nag da di fàttali tuuti suñu réalisation yi nag parce que Ogo Diop man dama ko tenir à cœur ndax histoire u Ogo Diop performance u Ogo Diop ay résultats yu Ogo Diop doon am ma ñëw fi visiter ko keroog yàlla xam ne ne suma rongoñ na fa tuur ndax école bi ni muy meloon man état bi naroon ko tëj ma ne Ogo Diop mérité wul lii bi ñu engagé travaux yi aussi ma ne nañu mettre l'ASC au cœur des travaux ñu dënk leen nettoiement bi tamit ngeen assurer ko avec brio waaye ñu pare travaux yi aussi ma ne nañu impliqué waat ASC bi parce que lu mel nii il faut que maintenance bi population bi assuré ko te population bi ASC bi ñooy représentants. représentant donc tey damay profité pour dénkaat l'école. école bi ne leen ñun li ñu investir réhabilité waaye nag entretien bi ak veiller à ce que environnement bi bu mu agressé école bi loolu yéen yéen a ko mën a def te loolu dafa bokk ci mission ASC kon maa ngi leen di dénkaat école bu baax li ci des mooy éco suma école la ndax fu Ousmane Guissé bokk nga xam maak moom ñoo bokk lépp bokkuñu parti waaye ñoo bokk lépp xëy na li may seq ak moom ci wàllu politique sax sequma ko ak ñi nga xam ñoo bokk parti ECHO bu ñoom Mouhamed Ndiaye bokk ak presque unité un ba 3 yëpp donc ku ko wax foog nga wax ñoom Seydina ñoom Moussa Tine euh, ñoom Pafal ñoom Khalifa Gueye ak ñeneen ñi fi nekk yëpp mënumaa bañ a am sensibilité ci éco mënumaa taxaw fii nag ne yéen laa faral ndax maire moom day tëddee njaaxaanaay surtout am na ay gars yu ma topp yoo xam ne côté bële lañ gën a féete bien que bokkuñu mbooloo waaye Maguette Fall de Ndiarème laay je le remercie de m'avoir accompagné ndax Guédiawaye benn dëkk la je me félicite aussi ci seen performance ndax defe naa 2013 woon ou 2014 bi ngeen di def union bi 2013 wax ji bëri woon na lool yaa beaucoup de gens n'y croyaient pas ngeen sacrifier lu bëri parce que li gën a jafe ci àdduna mooy ku nekk am fu mu taxaw ngeen décider benn jour bàyyi li ngeen nekkoon ñëw nekk benn donc loolu ci wàllu nawetaan prouesse la ndax nawetaan li ñu gën a tàmm mooy ASC bu xar ñaar waaye ñu booloo loolu c'est pas quelque chose d'évident

de Guédiawaï. Il y aura la fanfare de la police nationale. Euh, L'idée, c'est mon spectacle bi man que naa football de dina machallah. Les euh, supporters ils sont ñëw mais nous l'avons demandé. solennellement nous, ñëpp ñu participer à ce que ce soit une finale paisible animée mais paisible et euh, man awma titay ci côté bobu mën nañ animer lol tamit fair play nañ donc dal suñu amé jam ak salam am spectacle bu rafet am yakar ne dinañ am l'une des meilleures finales inshallah rabbi après mu dess échéance yi ñew coupe du maire bu ci nek rek taxaway biñ ci wara am suñu mën-mën euh, dinañ ci taxaw bu yalla rawati rawatina nak les phases nationales c'est pas la première fois Guédiawaye di dem phase nationale on a toujours accompagné ren encore on va davantage accompagner parce que ñaari ASC yi jóge région de Dakar yëpp Guédiawaye la ñuy jóge donc on sera à vos côtés su lii passé euh, bu soobee yàlla dinañ coordonner ak les responsables ak Malick ak waa ODECAV ñu toog waxtaan xool ban accompagnement lañu leen mën a def ba nga xam seen séjour danañ ko gën a yombal ci sunu kéemtalaay kàttan bien entendu, avec les efforts de l'AEC elle-même, l'effort des populations, mais le du manquer. manqué nous ñun danañ nekk côté sunu kéemtalaay pour que le séjour se déroule dans les meilleures conditions Nous ñu sas len ne bëgg nañ ngeen indi